jëf njoolum ajaratu kumba dem mi fi newoon ba dem xëy na dikkaat Abdou Diouf partout bil observateur ba mu ne ŋàpp livre bi Abdou Diouf bind tuddee ko mémoire la bi xëy sottel Abdou Diouf nettali fa lu bari ci ak dundam lu bari ci li mu nekkoon ci bopp réew mi lu bari ci ay jaar-jaaram lépp Abdou Diouf xëy na ko fa nettali mi ngi dooree ci ñetti fan ci weeru sulet atum 1998 ji mu fale Mamadou Lamine Loum te Habib Thiam àndu ci woon loolee jële woon Habib Moustapha Niass mi lankoon ne du dem ci dëju Jean Collin ndax li ko Jean Collin def Abdou Diouf ne Moustapha Niass sama ko nettali ne bi ma ko woowee di ko xamal ne Jean Collin na li ma wax mooy du ma dem ca dëj la ñoom ñoo ma kompaloo ne dañoo xam ne damaa tàng xol ñu bëgg ay pexe yu ñu def ba nga génnee ma ci gouvernement bi taxoon Jean Collin ne jiba ko bu Moustapha Niass ñëwee nanga ko daggal saagaw nday ca la ma jiba ko saaga ma dóor ko kurpañ Abdou Diouf ba tey ci nit liggéey ci livre boobee di mémoire a ci xare bi nu mu ko mënee ndax ba mu gisee élection yàgg na mu tëddee moo jël téléphone woo Abdoulaye Wade woo na Abdoulaye ay yoon yoon secrétaire bi bu dem dil si ne ko jotuma Abdoulaye Wade mujj gi Pape Samba Mboup la woo Pape Samba Mboup moo dem woo ñu Abdoulaye Wade ca laa ko félicité Abdou Diouf ne ginnaaw bi ca laa dégg ne Abdoulaye Wade dem na ca Louga seeti sama yaay sama yaay ci boppam moo ma woo ne ma Abdoulaye Wade ngi fi wax na ci wax ju baax wax naa wax ju baax delloo ko Abdou Diouf ba tey na ca prestation de serment ba maa toog ak Abdoulaye Wade ca palais ba laaj ko ko bëgg def mu ne ma fanweeri fan ak benn ci weeru mars laa ko bëgg a def wax Bruno Diatta na ko ko waajal waaye wax ji des na ndax prestation de serment bi bëgguma ko defee assemblée nationale ni ñu koy defee stade laa ko bëgg defee Abdou Diouf ne loolu andi woon wax dëgg moo tax mu nangu ko te yow maag Abdoulaye Wade foofee ndax ba ma ko laajee leneen lan nga bëggaat ci prestation de serment bi li ma wax moo di am na njiiti ci Afrique dama bëgg ñu ñëw teewee ko Abdou ne ko jox ma liste bi Wade andil ko liste na ca président yooyu Abdoulaye Wade bëggoon a invité ku ca nekk ma bindab lettre yónnee la boole cekkit yëkkati sama téléphone woo la ngir nga ñëw teewee ko populaire moom it xëy def na l'observateur gàddu livre Abdou Diouf bi di ko jaaba jonge ci xëtu njëkk journal bi kàddu njiit réewu Sénégal ba woon di Abdou Diouf mu fay leeral ne atum 2000 bu gañe waatoon élection yi bu boobaa du baax ci moom ñaara amoon alternance am ci réew mi ba mu faatu wuute ko demoon na ba gis na ñàkk élection yi mooy li gënoon ci lépp ci méttit la amoon njiiti réew yu Afrique ak ni ñuy doxalee Diouf na ñaari mandat doy na sëkk ngir président diggam ak Abdoulaye Wade ak diggam ak Macky Sall Abdou Diouf wax na ca nee na gi am diggam ak Macky Sall moo ko gën yëg ci Abdoulaye Wade Sud Quotidien nañu Abdou Diouf ma ngay defi ndénkaane Diouf ak la mu wax ci livre ba journal bi xëy ci lenn bokk na ci bi muy fàttali ko ji nga xam ne Xadafi dafa bëggoon fëkk doom ja maanaam kidnappé kii di Yacine Diouf la ko tàqaleeg Jean Collin ak ko bi Walfadjri nañu Abdou Diouf ubbi na albumu souvenir am ma ngay fàttaliku démb Le Quotidien nañu ak nekkinam ci bopp réew bu Sénégal Abdoulaye Wade mi ko fiy wóotoo constitution yi ci dénd bu Afrique bi Abdou Diouf ma ngay fàttaliku lépp meneen Diouf mu ñu dootul fàtte moo di Mame Biram Diouf mi ngi ci Walfadjri maxub Sénégal ak Égypte Mame Biram Diouf moo dugal bit ba benn bal ci dara la max ba mujjee journal bi di Walfadjri nañu gaynde yi la ñu doon se gis nañu ko mu di Coupe d'Afrique 2015 stade yi la leen ko wax di yéen dof de le soleil nañu gayndee sénégal yeeg bit bu ñu dugal ca isib daanaka jar na or direct info nañu bi mooy fukkeelu yoon ak ñett gayndee sénégal yi di teew ci coupe d'afrique enquête dina kenn ñu dekkiwaat nañu gayndee sénégal yi teguwaat nañu ci seen tànki mag yi woon atum jafra saaxo bokk ci footballkat gayndee sénégal yi ni ci u njëkku journal bi dem ba jeex rek dem ba ci coupe d'afrique ba gagné ko ñibbisi la sénégal nañu toogu gi kàngami football Sénégal yi ñoo ko gañe benn bal ci dara observateur nañu gaynde yi sulaat nañu dallu bata maanaam ci gàttal ñu nga jëm ca bata ga ci Guinée équatoriale fa ñu leen duma woon duma yu metti ñetti max ñetti défaite kii dégg ndam mi ngi ci sunu lamb mu di Bombardier yéene bi nañu B52 le roi des arènes Bombardier mburu mbuur mi mu nga ci diwaano Paris foofee la yëkkatee kàddu jëme ci combat am diggam ak Modou mu ne combat boobee askan gannaaw ay jàmm lépp waat na ci yoon Rocky Balboa mi ñu koy waxal Bombardier mel na ku sonn ca wax ja ndax ma nga naan waa sunu làmb Rocky Balboa ak Bombardier wax joojee askan wi dañu cee maar